jërë ngeen jëf mbokki internet yi safoo di seetaan Actubuzz TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo tey nag dañuy dikk ak yéen ci benn xibaar bu doywaar bu am fële ca route de Wakam ci ay booru 6 heures du matin ci la fa benn moto daal di daw rek ba mbëkk benn miir moto boobu nag daal na defoon ñaari nit muy kenn ku góor ak kenn ku jigéen ci noonu rek eh, ci lañ daal di jaaree daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw biñ mbëkkee eh, miir boobu mbëkkin bu am doole ku jigéen ki ñu ñuy xamle ci ay xibaar ne moom eh, bopp bi dafa daal di toj ci saa si ku góor ki itam daal di ñàkk bakkanam jamono yi ñuy waxee ak yenn ñu nga ca hôpital koor ya seen ay mbokk ñu ngi fa pour récupérer ko rédaction bu Actubuzz TV di ko jaal famem te di leen ñaan euh, yàlla xare leen aljana abu waaw jërëjëf Fa euh, ñu ngi leen nuy baax di la siyaar di nuyu mbokku internet Actubuzz yëpp euh, di jaale ñi nga xamante ne mooy famille ñi nga xamante ne tey ñoo décédé muy li nga xamante ne tey ah choc bi nga xamante ne am na foofu mu nekk choc bu métti ah, ba am xale bu jigéen bu si ñàkk bakkanam ak kenn ku góor mu nekk loo xamante lu méttee di leen ñaanal yàlla suufeef seen kaw yàlla yàlla xare àjjana firdaws di wax eh, toujours borom moto yi tamit xam nga nañuy sóoraale xam nga lu bëree bëri télé bi dafa a xat lool lool lool lool lool dafa mel ne yàlla suñu borom maanaam daf ñu bëlag seytaane boo xamante ne ni dañoo ànd ak fitna waaw dañu xaw a di sóoraale waaw ki nga xamante ne nag eh, tey ñàkk na si bakkanam loru na yaa ngi dégg àdduna nag moom la di wax tamit euh, xale yi nañu gën a muñ te gën a euh, maanaam maîtriser li nga xamante ne mooy seen ko ca dawal waaw na na yëf yi jër muy gaaw na yéex ta sa soxla ah nga maanaam bu mu yéex lool mais tamit bu mu gaaw lool mais nanga dem ci jàmm ñibbis ci jàmm teg ci li nga xamante ne mooy ci liggéey ci yoon parce que boo xoolee fan yi euh, am na parce que fitna euh, bi li nga xamante ne homme de tenue ñu ngi koy fitnaal li nga xamante ne fan yi rek mooy euh, moto yi actuellement ñu ngi ci indi yenn tey ay daan yi métti fan yi ba gis nañ li nga xamante ne tey mooy état bi ndogal yi mu jël ci li nga xamante ne mooy ci moto yi parce que gis nañ jéyee yi nga xamante ne moto yi ñu ko fiy def yaa ngi dégg xale yi nañu dawalee ndànk moto yi loolu mooy nekk li nga xamante ni daal mooy lu logique mooy li nga xamante mooy yoon ku naan la sangul seet na sa taar la bëgg yoon état bëggul lu dul xale yi nekk ci bonne condition am jàmm ak salaam. mu ngi noonu abu mu nekk mbir mu doy waar bu xewee woon fële ca route de Wakaam information baa ngi noonu xam naa dinañ ci ñëwaat ci suñ ay yeneeni jotaay ngir daal di leen di toppal mbir mi ba xam fan lay mujjee.